asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 27 mille 2020 ñu ñëw ci yëglikaay yi moo xam sunu làmb la record wala Leewtoo TV bu dee yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb la moom li leer ba leer daal combat royal ba nag dafa mel ni fi mu nekk nii day mu ngay bëgg a xeeñ neex ndax nag léegi yëglikaay bi daal xëy na woon ñu Ama Baldé ak Modou Lo mu mel ni ki nag lam ñu xamal lool mool daay lig Nicolas yi del fi mu nekk nii moom mu ngay accélérer laa cadence nag maanaam daal yokk ay vitesse ngir nag jëmali ca komba ba moo tax yëglikaay bi ne na ñaari mbër yi daal muy doomu Fallaye Baldé bi ak roi des ba ca Parcelles di Modou daal seen jàkkaarloo bu njëkk gisante ci biiri bët moom jàppal la 4 février lay am ca TFM loolu la ñu yëglikaay bi di sunu làmb tey xëy ñëw waaye nee na nag lu jiitu lool moom balaa am seen ñaari manaat ya moo xam biram ñëng la wala Abdou Bakhoum ñooy ubbi baal ba ñoom nag talaata ji ci la ko ko fas yéenee def ñoom ñooy jëkk a jàkkaarloo loolu moom la yëglikaay bi xëy tey wax ñu ko moo tax mu ne ñu dey Modou Lo voyage am ba nga xam ne mu ngi koy def ci États-Unis moom da koy fàddi sax lem ñibbisi ci réew mi Zil Balde mu ngay laaj ab document boo xam ne daal mooy daal maanaam def ko waaye jàppal ne daal fi mu nekk nii moom combat ba moom daa mel ni fi mu nekk nii day heure ba daa mel ni nag jot na ngir nag wax ja tàmbali ñu fas yéene jëmali ca bisu bëree ba loolu yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dina ko wax leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na dañ ko wax muy meneen mbër moo xam ne moom mu ngi ci xëtu yëglikaay bi muy Gris Bordeaux Gris nag moom li leer ba leer daal yëglikaay bi nee na wala boog mënaat seeram di xalifa ja moo ko dalal xalifa nag la mu wax daal ne na Gris moom na jàpp wala na ko nit ñëpp jàpp Gris mënta bañ daje ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy espoir yi ji rawatina sax jàpp na ne ku mel ni tafaatin wala keneen ku ma mën a doon xalifa ja moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu dañuy dem ci kaay bi nga xam ne nag moo di record record moom tey xamu xëy dalal moo Yékini Junior depuis ca New York daal fa la waxe ay waxam ñëw na ci adversaire de taille yi nga xam ne ñoom la war a jël wala combat yi ñu koy waxal rawatina digganteem ak Sa Thiès itam andi fa ay leeral ne na leer ba leer daal sama diggante ak Sa ngi koy wax waaye nag lu leer amagu ci maanaam daal ku ñëw wax ci wax joo xam ne ju dëgër la jees ma na jàpp moom jàpp na ne gisagu ko waaye su amee itam moom daal pare na ngir bëre waaye rëg-rëg ma nga xam ne nag ay ragal la leen jàppe abu nduur ne ko waa rëg mu leen wax nag nee na ay ragal ngeen moo xam yow la wala guy gi wala ku mel ni ki yéen mu ne sa normal mu wax loolu ndax xale la boo xam ne maa ngi koy suivre mu ngi wane boppam bu baax a baax di am ay ndam yu leer a leer kon nag xëy na bëgg bëre moo tax mu wax li muy wax waaye waxewu ko xëy na ngir lu garaaw wala kiñante lool daay mooy wax yi ki nga xam ne moo di Yékini Junior ak yeneen wax yoo xam ne daal yaatal na ko fa nga xam ne nag moom moo di ca record yëglikaay bi xëy na tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu waaye leneen loo xam ne tamit dañ cay dem mu nga ca Leewtoo TV mu mel ni ki nag promoteur yi seenu yaram tàng na fi mu nekk nii ndax démb ka nga xam ne moo di jéy seen moo woote woon ca hôtel Arc-en-Ciel ba ca Lagros doon fa def benn conférence de presse benn combat bu mag boo xam ne taxawal na ko dox ci diggante Abdou Diouf bu écrit Waalo ak Gris 2 waaye nag moom làqul Gris 2 fa mu jëm ne na ko li leer ba leer day seen écrit boobu min naa ko lool dugg naa fa juróom-ñetti yoon wala ma dugg fa juróom-ñaari yoon yoo xam ne day benn defet laa fa am say mag yu ci baree baree bari daan naa leen te loola ci yow mii lay wàcceeku giri de ne ko nag jàppal li ma lay wax bi yoon moom du neex ci yow Abdou ndax nag man moom balaa ma laa daan danaa la defaral ba pare door laa daan ngir nga bàyyi écrit face mu mel ni ki foofa jéey moo fa jaar waaye ba tey ca Leewtoo TV buñ fa demee dañ fay fekk beneen vidéo boo xam ne day li leer ba leer Xaadim Samb moo fa jaar diggante Aline Seyde ak ñàkk jariñu Buur Sine Eumeu Sène senior mu mel ni ki ñooñ tamit ñu nga ca defante bu méttee métti di diggante ku ci ne yaa ngay dig sa morom lu tara tara tar bu ñu yeggee ci combat loolu tamit mu nga ca Leewtoo TV waaye leneen loo xam ne tamit fekke nañ ko démb jàppal Boubacar Niang ak Ama Evans ñoom itam day diggante fils de Zallo ak caatu ngewel tàng jër defoon na ko fa nga xam ne tamit fa lañ daje woon doon fa def seenub jàkkaarloo mu mel ni ki kon daal promoteur yi fi mu nekk nii moom seenu yaram tàng na mu mel ni kon mois de février bi daal nar naa métti te nar naa tar koo xam ne nii moom taxawal combat bu bees teq mu nga ca sunu làmb muy prince na mooy diggante nga xam ne nii mooy armée bu benn baraak ak fëgala bu lamsaar mu mel ni ki tam foofa prince moo xëy tey ñëw jaar fa andil ñu fa làmb joo xam ne nii daal ju nar a neex la waaye am na leneen loo xam ne tamit dañ koy fekk fa nga xam ne mooy ca Lutte TV mooy oto tafaagéey ba nga xam ne daal dafa lakk ba seey ci autoroute APS bi démb ci dimanche ji loolu tamit fekk nañ ko fa di ab vidéo waaye buñ fa jógee nag dañuy dem ca làmbi simple ja mu mel ni ki nag terrain gaal gi moom démb ña fa tegoon tànk moo di caaka fay ak ki nga xam ne nii moo di baaba Tine wala Boubacar Tine ñoom daal lañ fa tegoon ñoo ko jël bu dee luur ba caakaa ca teg loxo lesa ba itam ka ca teg loxo mooy Babacar Tine yëglikaay bi moo xëy ñëw wax ñu lu mel ni kii noonu waaye keneen koo xam ne nii moom li mu toog loxo jàpp ci ba mu dëgër dëgër ci lu toll ci 21 jours maanaam ñaar fukki fan ak benn mooy ki nga xam ne moo di faraa yëglikaay bi xëy ñëw wax nu ko nee na Franc day ba mu jógee États-Unis ñëw ci réew mi ak léegi daal bu toll ci 7 cent cinquante mille francs ci làmb ji nga xam ne ni moo di làmbi simple ji waaye yàgg maar 7 millions 800 mille 850 mille francs ci 21 jours loolu la franc def ñu naan ko kaar kaar macha allah kon mbër yi tey ngeen dem ci làmbi simple ji di ko fa ñàkkante weccata nga fa de toog nag di xaarub combat atum lëm yàgg defe naa boo gisee fu ñu teg ay millions nga dem ñàkkante jël ko da ci am solo. Franc moom daa mel ni moom xam na ne fu lay jaay Dakar wala ma ñam jeexal ko xam naa moo tax mu dëkkee noonu. mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon si bi ñu ànd si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Ndeye Coumba di la delloo ziar di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nii ñu ngi ñuy suivre ci Leewtoo TV rek di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñoom. Babacar ni ñëw si ak sunu lamb record Leewtoo TV ñu commencé ak sunu lamb sunu làmb na dafa xëy ne euh, jàkkaarloo bu njëkk comme la ñu waxoon rek léegi fi mu nekk ba tey rek mi ngi coordonné pour combat bi rek mun a am nee nañu premier jàkkaarloo euh, diggante Modou ak ki nga xam ne mooy Ama Baldé pour le combat royal la le 4 février lay doon foofu si TFM mais nag balaa boobu suba ñaari manager yi ki nga xam ne mooy Abdou baaxu manager Ama Baldé ak ki nga xam ne mooy Birame ñi nga ama euh, manager Modou Lo daan def seen premier jàkkaarloo suba si TFM Babacar. waaw loolu de <clears throat> maanaam euh, kon dañ naan alhamdulilah rek parce que tamit xam nga combat bi comme nekk na si demande sociale lu làmb li waa làmb doon laaj tey lig taxawal ko. ah ñu fas yéene def jàkkaarloo la 4 février ca TFM li ci jëkk nag mooy balaa loolu ñaari manaatse yi ñi leen di engagé ci wàllum CNG bi daneen jàkkaarloo muy Abdou Bakhoum ak ki nga xam ne mooy Basirou Babou waaw loolu nag kon bu amee yaakaar na daal ñi noon xalaat naan combat bi dina am a kon Biram Ñing moo yore xam nga Basirou Babou ak Modou dañoo xaw a yàgg xam naa loolu moomu yóbbaale kon daal na amateurs yi waaj te xam ne kon combat ci ndax suba jooju nga xam ne ci la manager yi war a jàkkaarloo wala la 4 février yàlla na fekk Luc Nicolaï ni ci biti parce que tamit ñun bu ñu sañoon wax dëgg yàlla combat bi suy am Luc da koy fekk parce que itam wax dëgg yàlla dina metti Luc ne ci kaso bi combat bi déroulé sans mu ne fi loolu xam naa ne euh, di dina metti trop daal vraiment parce que tamit mooy loolu daal parce que Luc daal mu ngi noonu daal Euh, Babacar nag jàkkaar jàkkaarloo boobu am war a am le 4 février boobu euh, Kida ki nga xam ne mooy Jules Balde manager Ama Balde mi ngi araftu ñi nga xam ne ñoo organisé combat bi daal balaa muy dem si benn face à face jox ko kayit bi wax ni que war na teew si face à boobu parce que bëggul am benn problème ak ñi nga xam ne mooy ñi organisé combat bi Babacar. waaw Jules Balde sax mooy magam waaye boo dem la neex sax nga naan entraîneur manager bi Abdou Bakhoum la waaw ah xëy na kon jàpp na ne moom lu leer a tax a dem wala mbërëm Ama loolooy tax mu dem le 4 février ci jàkkaarloo bi wax loolu nag moom yaakaar naa ne est-ce que ñi ñi ñi tëgg komba bi bu ñu naree jàkkaarloo moom dinañ indi lu war a tax jàkkaarloo di am indi ay firnde parce que olof ne na moom lekkitu gasi du ndax ay bëy kon dinañu teg ci seen loxo loo xam ne xëy na bu jàkkaarloo jotee mbër mu ci ne di nga xam ne lii yow la engagé di nga dem defi lal sant lañ la sant par te contrat obligé la ko pour nga war ko def mais dafa am loo xam ne nii xëy na dinaa ko junj tuuti parce que démb dama jël Abdou Bakhoum mu ne ñoom Um, def looloo xam ne ni yow amoo ci benn engagement jàpp na sax am na ñoo xam ne ay courtier lañu ay courtier manager ñu ñëw di wax wax yoo xam ne teguwul xëy na du ma ci sori ci loolu mu wax mais xëy na vidéo bi bu duggee ci Leewtoo TV dinañ ko seetaan pour nit ñi gën a am lu leer ci wax jooju waaw kon euh, ki nga xam ne mooy Abdou Bakhoum di manageru ki nga xam boobu ba kenn déggu leen Babacar mbaaru dañoo làqu ci ab ruq rek ñoom ñett ñoo toog <laughs> suñu père Gaston ñu koy nuy di nuyu suñu frère euh, euh, Baye di nuyu suñu DG tamit Pape Thialis kon ñoom daal dafa mel ni tey yëglikaay bi daa xëy di leen wër di laaj ndax dinañu renouveler seen licence wala déet waaw ñu ñu ngi ñaan nag ñu renouveler parce que ñett ñi mu la limbal ñëpp ku ci ne am nga loo def ci làmb lu marqué sénégalais yi yaakaar naa ne Baye Ndiaye kenn du ko laajte si làmb Thielès si itam donte benn saison la ñëw def li mu def waaye defe naa ñëw nekk na saison boo xam ne nii ba tey ñaa ngi koy waxtaane Gaston nag dama naan mooy làmb waaw ndax moom yaakaar naa ne 92 ba tey du ay fo wala lu ko lu ko jiitu nga ne ci làmb dundal ko ci côté bu ne kon ñett ñi moom defe naan seen ñëw ci làmb itam dana doon avantage fekk si li fi euh, ki nga xam ne mooy Khalifa Dia Khalifa Dia soo leen ko déggee mais mi ngi samp laaj ne lan moo tax Gris Bordeaux war ki nga xam ne mooy Tapha Tine Babacar waaw moom daa jàpp ne ah, de bu ne kon kenn dootu amatetu lees si war a wax ndax Khalifa Dia moom mooy engagé Gris Bordeaux ci wàllum ay contrat di management kon bu ne moom ak Tapha Tine wala keneen ak keneen kon yaakaar naa itam lool c'est normal et puis te Gris ak Tapha it dañoo war a bëre xam na may dégg yéen amateurs yi ñu neñ léegi derby bi dafa xaw a manqué ci làmb te Gris Bordeaux Tapha Tine la waaw parce que Medina baa tax kon yaakaar naa ne loolu Khalifa Dia wax ñu koy nuyu di ko ziar war na mën a nekk kon promoteur itam nañu wax si combat Gris Bordeaux ak ki nga xam ne mooy Tapha Tine waaw ah, Babacar nag euh, suñu jógee fi nga xam ne mooy suñu laam nañ dem si record record nag moom ki nga xam ne mooy Yékini Junior mi ngi euh, génn euh, depuis États-Unis daal si xalima Abou la wax ni moom daal bëgg na bëre te bu bëgg na daal am adversaire de taille combat bu bu bu féroce daal Babacar. waaw moom daal loolu mu wax defe naa ne mooy li war a mën a nekk itam am adversaire de taille ah war na koo mën a am ndax xam naa guy gi adversaire de taille la Euh, Sa Thiès adversaire de taille la ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne Yékini si ñoo war na bëre mën war na mën a bëre ak ñoom ay ama neex ak ñoom ñëpp ay adversaire de taille lañ pour moom kon yaakaar naa ñu koy nuyu di ko ziar depuis New York waaw moom làqatukat la parce que bu ma koy xamul ne man xam naa ne mu ngi New York bu may xam naa ay maa ngi gaat ak maa ngi bawal ak maa ngi nangam waaw adversaire de taille nga bëgg di ko am Papa Ndiaye xam nga nu mu doon bëree bu njëkk tur bi Ndiaye ah, xam nga ko Ndiaye. dama yàgg si lamb ba muy bëreeg wulli Ndiaye Angé boobu loolu la débuté kii Ndakaaru waaw ñu koy nuyu di ko ziar. question piège la xamal dama yàgg tamit si lamb ji tamit Babacar maa la si jiitu foofu di ñëw nag eh, toujours si record record dañuy nga xam ne mooy Gris moom nee na daal bëggul wax si ko diggante Papa Sow ak Fass na parce que xam ne ku nekk kam moo tooñ Babacar. waaw mbir day wax de des fois bu bëree sax mën na indi ak gën a indi jafe-jafe nag loolu mu wax Euh, moom mi ko wax xëy na am na lu mu ca xam waaye diggante boobu daal man la ma ci daan wax laa ciy wax rek bu tàqalikoo de am na rafet bu àndaat de am it na rafet ndax lu ci mënti xew mooy ànd ba daa yàgg ànd nag bu fekkente ni du démb te du tey yàgg na loolu juddu la kon lu ci mënti xew rek nañ ko jéem a defar rafetalaat ko ndax butéel lu mu yàgg yàgg yàgg ci suuf boo ko génnee raxas ko ba mu set defar ko bu la neexee utiliser ko njariñoo ko kon defe naa ne man loolu rek laa leen di wax daal Gris 2 nag am na leneen lu mu wax sax ci Papa Sow wala leneen lu gën a yaatu loolu tamit nañ ko xaar ci Leewtoo TV ndax comme li ma leen di wax rek làmb la ñuy def 100 pour cent te duñ ko rax ak dara làmb làmb làmb pour cent boobu sax moo tax Leewtoo TV samedi mi ngi woon Thiès Babacar weekend bi moom bëri woon ay face à face euh, allah yaa ngi woon Thiès ak yow sa cameraman yàgg maar si face à face si di jaxate waaw Thiès ba sax nag daa mujj yàlla da ca loolu yëgu ma ko waaw yëgoo loolu waaw xam nga yàlla mais su catagaaw waa catagaaw suñ tonton si di jaxate ñu koy nuyu di ko ziar parce tamit xam nga lenn li cër la rek ki am yëfam woo la ci ne la ñëwal ñu defoon la tout pour ñëw ba far mu am ay retard mu ne ñu kat kon bàyyi leen ba làmb ja ngeen ñëw amul problème mais lépp benn la ñu koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla journée boobu yàlla na ko réussir si di jaxate mais terewul samedi dimanche ji itam ma dugal ah ca kañ. <laughs> bu ginnaaw face à face samedi bi euh, euh, raté na ni ñëw nag face à face dimanche foofu sa Lac Rose euh, Babacar yow sa cameraman yàgg maar yéen ngeen woon Lac Rose mais demule woon nag pour noppalu la ngeen dem woon nag pour liggéey diggante ki nga xam ne mooy Abdou Diouf jëm moom nopp lu doo nga fa jekkoon wax dëgg yàlla ndax piscine ya neex na piscine yu lay maase sax xaw ma nu ñu koy tuddeeti jacuzzi jacuzzi jeex na dee ma gindi jacuzzi yaag lépp nga ca biir hôtel arc en topp ma rek si français ma lay topp si wolof waaw kon baax na kon dee ma jàngal tubaab ma lay jàngal olof mais jéy seen moo fa woote woon yaa dégg muy combat boo xam ne tamit la ma ko wax démb rek combat bu bu kenn bàyyiwukoon xel la làqar ci am fa six victoire benn forsa ko fa daan yaa dégg kon tey bu ñëwaatee Gris de nag neen ko bi yoon bala nga booy génn dama lay defal affaire ba pare door laa daan mu kon ñuy félicité Dieye ci loolu mu tëgg et puis tamit di félicité Abdoulaye Ndiaye mi nga xam ne démb moom la Dieye tegoon mbir yi ci loxoom mu di ko doxal mu nekkoon daal démb moment yoo xam ne neexoon na ñuy nuyu waa hôtel Arc-en-Ciel parce que tamit partenaire lañ pour jàppale Dieye ci journée boobu loolu tamit luy yokk làmb la quoi ne mooy borom kër nga xam ne tamit moom moo géré li nga xam ne mooy personnel u hôtel Euh, suñu demee tamit si Leewtoo TV ki nga xam ne mooy suñu confrère nekk léegi promoteur Boubacar ñaanu ko mu nekk patron Ama Events moom dafa euh, tamit def na fa benn face à face feeñ benn hôtel de la place diggante euh, ki nga xam ne mooy fils de Zallo ak Thiatou Guewel seen combat bi nag ni nga ko prévoir le premier février Babacar Leewtoo TV tamit mi ngi fa woon. waaw mu nga ñu nga fa woon premier du samedi ji nu jëm Boubacar ñaam itam ñu koy wax machine spéciale liggéey métier di bind bindam mais tey gis na ne war na mën a yokk dara ci làmb mu ñëw indi apport am xaalisam tëgg ay combat muy fils de Zallo caatu ngéwél kon daakaar naa mention spéciale ci loolu mu def démb ñu nga foon mu nekkoon tamit moment yoo xam ne neexoon na trop fa nga xam ne ni fa lañ ko doon defe dem di presque fa Babacar na nu tëjee beneen face à face comme que weekend bi combat amul mais face yi moom takkara takkaraase na trop ki nga xam ne sunu papa Khadim Samb moo taxawal ki nga xam ne mooy combat Bour Sine ak ki nga xam ne mooy Eumeu Sène euh, Eumeu Sène junior foofu si 2S combat bi tamit euh, face à face bi neexoon na trop Babacar. waaw foofu itam neexoon na kooku tamit ba tey dama naan am na mérite ndax defe naa ne ci rajo ne ci télévision xam nga. liggéeyal sa réew ci côté bu ne suñu papa Xaadim Samb tey nga dem retraite jëlaat sa xaay di ko dugal ci lam di tëgg ay xale di di di yokk lam defe naa loolu tamit lu jara saliyé la kon so suñu papa Xaadim Samb ñu koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla fan wi gën a gudd cër a wér barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais di ko ñaanal bépp doomu aadama démb ca 2 la woon affaire bi amee woon TV mu nga foon yaakaar naa ne vidéo yi dugg nañ ko dinañ ko seetaan foofu Alioune Seye Alioune Seye 2 ñaq jariñu xam nga loolu combat bu mag a mag la ñu ne déet na waay ki nga xam ne mooy Eumeu Sène senior bu Mor Fadam ak ki nga xam ne mooy Bour Sine bu Bawol muy ñaari grand combat wala sax parce que mën nga ne combat yi di début à yépp ay grand combat la kon yaakaar naa itam loolu neex na trop muy bés yoo xam ne daal ah yi bu euh, am na bu ma fàtte waaw face yi ah waaw yooyu de moo amoon dem ci weekend bi xanaa leen lu taxawaat rek muy diggante fëgala ak armée bu benn baraag ak prince ci soxo waaw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 jox da ngaa gaaw ni Ramos. waaw mu ni capitaine Sergio Ramos di féliciter sama capitaine tamit Sergio Ramos parce que man Real laa bokk loolu du mën a ñàkk di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ñuy suivre ak fu ñu mën a ne si àddina bi rek ñu leen di nuyu mais Mor Diouf depuis Petersen maa moo la Mor Diouf la Petersen moo fi jaar ci Lakos di ko nuyu di nuyu Rimka Couture di ko ñaanal tamit suba tuddam boobu yàlla nañ ko ci dugg bismillah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah liir xel nangu ko di nuyu sama rakk sama doomu nday saaliw xulle di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre mais tamit di nuyu sama waa dëkk waa ak yaay di leen wax mention spéciale doomu ak yaay yëpp maa leen di nuyu nag nekk fii garage cosaan sama xarit mbay ngom xam nga sama rakk yi ñoom saaliw joom ousmane ndour képp ku dëkk ak yaay baabakar ngi lay nuyu di nuyu nag sama mère maître pape di ko ñaanal jàmm di ko wax ne ndox mi baawaan na ndey kumba am na loo xam ne mu ne su koo bañ a wax médecin indil nañu courant ca biir ak yaay ñu ne déet ne waaye amoon nañu ndox de mais indi laat nañu meneen ndox de pilis maanaam fi mu nekk nii suñu kër boo demee tey robinet ya fu ne robinet nga fa. a fay naa kooku itam du jete fleur wala nangam liggéey la quoi parce que nit ñi bu ñu lay fal di la jiitaloo nangam maanaam pour nga yokkal leen seen. li ñu li ñu mën amal seen bopp la ndax dépense yi dem suñu kër ñun ñoo koy liggéey. la grosse non foofu assuré nañ ko ba pare. du fay dara yàgg. non même yow Ramos bu ñëwee mën ngeen faa dem loolu maa koy toppatoo loolu moom du benn Ramos boo jógee Sénégal ñëw Lagros maa lay yóbbu yàgg maar enseré naa ko ba pare yàlla na ñëpp am jàmm. bu suba incha allah. <laughs>